Oui, di remercier le président Ousmane Sonko qui est le premier ministre du Sénégal di remercier aussi le président Bassirou Diomaye Faye le président de la République du Sénégal ci confiance pour nga xam Tek nañ ko ci doomu teugej di docteur Abdourahmane Diouf mu nek ko xamné aussi am nañ yaakaar ci mom bu baakha baakha baax parce que nit la ko xamné yag na ci mbiru enseignement supérieur non seulement day intervenir en tant que professeur des universités mais aussi euh, dafa investir ci walu wi di université tijji maison d'édition euh, investir aussi dans le cadre de l'éducation am une école boo ça va du préscolaire vers le moyen secondaire donc jàpp nañ domaine boobu du ci lu bees si moom xam na ci am nañ yaakaar incha résultats solo waaw dañ koy ñaanal rek parce que aussi yakar la yala bu yakar, tas dit ko ñaanal di am xel aussi né, dina relever les défis inshallah au niveau de l'enseignement supérieur parce que aussi jàpp nañ ne xam na ko ci expérience na té japp nañ ni dal inshallah suñu borom dina ko si bu baax mu réussir. Abdourahmane Diouf ku ko xam aussi xam que vers l'international amna solo parce que liggéey na pour euh, organisation mondiale du commerce liggéey na aussi pour beaucoup de pays africains au niveau de leur négociation à l'OMC liggéey na pour les Nations Unies liggéey na pour euh, la CEDEAO liggéey na pour UEMOA liggéey na pour francophonie liggéey na pour euh, Union européenne donc bref Abdourahmane Diouf liggéey na aussi pour État du Sénégal donc ku am expérience la ku yag liggéey la ku gëm liggéey la ku gëm investissement la aussi ku gëm éducation éducation la donc suñu xel day dal tey bu ñu ko dénkee wàllu éducation wàllu enseignement supérieur di ko ñaanal rek yàlla may ko kattan may ko xol may ko lépp li nga xam ne koy permettre ëllëg confiance bi nga xam président de la république teg na ko ci ndoddam mu mën ko mériter teg ay actes yoo xam ne permettre ñu gis ay euh, lendemain meilleur dans le secteur de l'enseignement supérieur incha